la honneur de Dieu le clément, le miséricordieux. Que la paix du Seigneur et son salut soient sur le prophète Mohamed, le sceau des prophètes, sa famille et ses nobles compagnons. Donc ce propos va s'adresser aux citoyens du monde, en commençant par notre pays, le Sénégal, paix de Teranga, l'Afrique et le reste des continents et leurs États. li may leeral mënu ma ko ñàkk bañ a tàmbalee fii ci Sénégal mission bi dafa am lu ci Sénégal moom am lu ci Afrique moom am lu ci àdduna bépp moom xeet yu bokkul yépp moom ki ma ko sant mooy kiy sowee adduna bi damay njëkk a wax nag li nga xamante ni bii moo concerné ñeneen ñi nga yeneen citoyen sénégalais yi nga xam ne du ñu ay sénégalais waaw mën naa am nag ñu dee ay africain ci biir continent bi nek ay citoyen du monde ci yeneen i continent yi ak yeneen i état yi loolu laa njëkkee soogañ mujjee li nga xam ne moom moom moo concerné sénégalais yi surtout ñi nga xam ne les du pouvoir man ku tedd ki moom a désigné ci mission bi mooy sawee adduna bi yore ab xalifaam mu nekk feeje Touba ëmb ñëpp di kilifa kilifa yi waaye mu nekk tool bu mag ñetti tool yu mag yoo xam ne bii dafa yomb bi yombul jafewul bii dafa jafe mu ne ma naa laxal saa yu dem ci bii jafe lii ma tax a jóg moo tax may comporte woon nu nekk di solo nu nekk di waxe nu nekk di doxe nu nekk moo ma baax yi itam benn suuf boo xam ne suufu Tuuba la baax na benn ban boo xam ne banu Sikori la moo argile et mon sable mon légué par mon guide par mon sauveur je bien mon sauveur ku bëgg mu nekk sa sauveur lijjanti koog moom daa sama waxi bopp laay wax bëgguma ku gëm wuutuma ku gëm li may wax ak ku ko gëmul ci biti laa jëm waaw wan leen lim may wane loo wax leen lim may wax loo sama arsil laa yor ak sama saabul bu jóge ci moom nekk remède waaw mu jëm loo fu nekk bu ci état jàppee pour ma def ko baax na bu ci jàppul baax na bu ci état jàppee baax na bu ci jàppul baax na waaye daal ci boobu liggéey laa nekk loolu moo waral révolution pacifique bi moo waral jihad pacifique bi xeexuñu xuloowuñu tooñuñu fayuwuñu dañoo nekk ci li nu gëm waaw mu des lan muy des sama jëmmi bopp man en tant que citoyen sénégalais en tant que guide en tant que responsable wax fi sama projet Al nga xamante ni bii la jeunesse du Sénégal waaw maanaam la jeunesse sénégalaise ñëpp mën nañ nañ cee profiter développer réew mi ci lu dul ñuy xaar pétrole gaz waaw ñu lànk dinu tànkam lu normalement président bi ñu ñi ma concerné ñëpp di leen waroon a dàq waaw parce que ñëpp a xam li ñuy jariñ ci réew mi ndaw ñi itam ñi liggéeyul ba noppi am pas-pasu liggéey ñëpp leen xam fii laa wax sama projet publiquement avec Moussa Seck ingénieur waaw bu ñepp xam waaw ñoo lànk waxuñu lu ci jëm waaw te projet boobu képp mënoon naa tàmbali mënoon naa doon clé caabi ci luy développer ren ah ak plan le plan d'émergence bi nga xam ne moom la président bi teg di président Macky waaye defuñu ko waaye teewul na nekk ci lu nu nekk nun ñii ak ñu nu bokk leen ngëm-ngëm nanu solidaire nanu ànd doon benn dank ni nu ko Serigne Touba digale te bañ a yaakaar kenn nag waaw ku dul Serigne Touba waaw ndax ñun di nuy li nit di soxla ci yàlla daf ko daf na ko joxal Serigne Touba ci loolu la ñuy wut waaw loolu laa bëgg Sénégal yëpp xam ko ñun ci loolu la nekk waaw di baalu àq ñépp nag dina bu ñu ziyaaree xalifa bi ba noppi wasalaam